Cheikh Mamadou Bassir ñu ngi lay nuyu ci tur Touba ci kanam ci njiitul Cheikh Habib moom Cheikh Mamadou Fadal ak ci bokk yi ma àndal ñu li ñëwoon fi nag ci tur Touba ci kanam di la siyaare si ndokkeel ci weeru tedd wii ak ci liggéey bu rëy bi nga xam ne sa kilifa teg na ko ci sa loxo te kilifa tàmbali woon Cheikh Mouhamadul Amine ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha muy liggéey bu yaatu di bis bu rëy boo xam ne nose ko ak toppatoo ko li ci ne ci ab coono ku ne xam na ne mett na lool waaye nga yenu lépp ngir Sëñ Tuubaa te lool yi ñu mat ci seere lool ndax ba mu tàmbalee ba tey noo ko ànd ginnaaw loolu nag Touba Ca Kanam dañ koy dikkoon tey ngir ni nga xamee noonu lan baaxoo doxe ci liggéey li nu tax a ju muy liggéey Sëñ Tuubaa ci dëkk bi amuñ jenn itte ju dul jooju te it te dëkk bi it waxtu wu ne mi ngi ittewoo ku ku taxaw ci ay mbir dëkk bi yëpp waaye rawatina jamonoy màggal mel na nag bi màggal gi di jub waxtaanoon nan am yéene ak pas-pas fas yéene jàpp ci màggal gi ci dëkk bi ba yi nga xamante ne des na ko fi ittewoo luñ ci man ñu def ko suñ kem kàttan loolu yi tàmbali nañ ci do ay jéego loolu moom googu wet moom dama koy jox suñ Fallou Ndiaye mu leeralal la bit si biñ ci génne woon ak liñ ci defagul te it xam ne itam mbooloo mi ñu ngi ci sàkku sag ñaan ak sag jàppale ci wet yëpp nag lu jëm ci wetu màggal loo xamante ne lu ñuy taxawale ci màggal gi rek Touba ci kanam jekk na ci ànd ko ak yow waaye bëgg na ku ko ànd ak ñoom ci gën leen a jàppale ci gën leen a soññi ak gën feeñal seenu liggéey ndax ni ma ko daan ni ma koy waxee rek liggéey bi li feeñal gi du ngistal du wane suñ jëf ndax sëñ Tuubaa moom weesu na nag moom foofu waaye day yëfi mbooloo moo xam ne mbooloo mi dañ ci am yaakaar lool ci doxin bi mooy tax luñ ci def ñu di ko wan ña ko joxe bañ xam ne joxe nañ ko loolu rek mooy tax waxtu ne ñuy muy leer nañ ñi si ndax nit ñi gis nañ ne loolu bokk na ci leen ci gën a sawarloo muy xam gi nga xam ne li ñuy joxe ñu ngi koy def fi tax ñu di leen ko laaj salaamaaleykum wa rahmatullah eh, baax eh, bi ñoo ngi leen ñoo nuyu bu baax di la ziar eh, di jiital ci nuyoo bi ak ziar bi sëriñ Muntaxa di ko ñaanal sunu borom may ko fan wu gudd ak wér di la ñaanal bu baax sunu borom may la fan wu gudd ak wér gën a dëgëral taxawaay bi ba yéene ji nga xam ne murid yi am nañ ko ci yow suñ tubaa defal la ci kawe sa njoot di jégalu lu baax ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi koy yëkkati ci kanamu sunu kilifa yi euh, liñ ci jublu rek mooy leeral li nga xam ne euh, ginnaaw biñ ci waxtaatee waa Touba ca kanam si kilifteeku sëriñ Abibu Mbakke Cheikh Amadou Fadal euh, ginnaaw bi nga xamante ne màggal gu jub si na ñu toog ak sëñ Ousmane mi nga xam ne moom mooy coordonnateur comité d'organisation bi mu wax ñu li nga xam ne bëgg na Touba ci kanam jàpp ko ci màggal Touba gi. gannaaw biñ ci waxtaanee keroog ci kanam sëñ Abib ak sëñ Ousmane ak mbooleem kilifay Touba ci kanam yi eh, lañ ci juboo woon mooy Touba ci kanam dana génne téeméeri million ak juróom fukk 150 millions yoo xam ne danañ ko def ci dëkk bi ci biir màggal Touba loolu nag dañ koy def jàppale ko comité d'organisation màggal Touba ndax ñoom la sëñ bu dénk màggal gi kon lépp luñ ciy def rek ñoom ñoo ko war def kon ku ci lu ci waay def rek ñoom nga koy jàppale moo tax biñ ci sëñ Ousmane waxee ñu amoon ci mbekk lool. ndax euh, bañ jógee rek euh, dëkk bi rek moo ñu ñor liggéeyal sëñ Touba kon buñ demee bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo ŋànk dëkk bi ñoo bëgg euh, ñu ànd ak ñoom ci loolu kon loolu feex rek lañ ko jàppee biñ ci waxtaanee ñu xaajale ko ci ñett ñetti cër suñu Ousmane wax ne lu jëm ci wàllu dëkk bi leeraay gi dëkk bi gis nañ ne lëndëm na tubaa ci kanam mu xool nu mu ciy jàppee ak lu jëm ci wàllu ndoxum dëkk bi ndax gis nañ ne bu màggal ñëwee ndox mi dafay manqué. ak it euh, li nga xam ne moo jëm ci taataay ndax euh, màggal gi ku ne xam na ne moom agsi na ci nawet te dafa mel na ni ci kanam la jëm euh, ñetti pàcc yooyu nag ñu ne téeméeri million ak juróom fukk yi ñuy génne pàcc bu dañ koy réserver cinquante millions lu jëm ci wàllu leeraay bi ñu dem Chine ci usines yi nga xam ne ñooy defar lamp yi muy lampadaire yu mag yi def ci poto làmp yi ñu fàggu ci 2000 lampes 2000 lampes lañ jënd yoo xam ne incha allah su accès moom lañ bëgg a def ci mbedd yi nga xam ne tàkkut euh, lamp yooyu nag dañ koo tànn dem waxtaan ci ak waa Senelec lamp yooyu njënd nag dafa doon lamp yoo xam ne euh, dafa am connecteur yu automatique euh, fu mu lëndëmee day tàkkal boppam fu mu leeree mu fay nga xam ne du jar muy am contact yooyu ñu commande ci lamp yi moom moo ñu demaloon ba Chine ko am yoo xam ne yooyu dañ koo jënd waaye lamp yooyu doonul loo xam ne dafa bokk ci 150 millions lamp yooyu ñu ngi ko jëndee 25 millions muy lamp yoo xam ne ci bund kër yi lañ ko fas yéene def yooyu bokkut ak ak 2000 lamp yooyu 3000 lañ ko jëndee Chine lañ ko jëndee foofu bu ñëwee dañ ko joxaat nit ñi kenn ku ci nekk fàggu ci sa def ko sa bund kër moo tax boolewuñ ko ci budget bi loolu 25 millions waaye 25 millions bu lamp excès day delluwaat ci Touba ca kanam ndax kuy ñëw lamp bu nekk ñaar junni nga ko jëlee eh, ñu kii ko ndax lamp yooyu biñ ko xoolee fii li muy jar mën na fukki junne ñett waaye bañ ko jëndee fee bënd ko fii kenn ku ne da ko mën a am ci ñaari junni ngir dañoo bëgg dëkk bi leer ndax bu pota lamp yi dee tàkk kenn ku ci nekk leeral sa bunt kër loolu dana leer naañ loolu lañ beneen bi ci topp mooy lu jëm ci wàllu ndoxum dëkk mi ndoxum dëkk mi tamit euh, juróom fukki millions yooyu liñ ci njëkk a def mooy keroog bi nga xamante ne bii waa maaw rahmati euh, wax nañu jafe-jafe pompe xam ne manqué woon na muy rahmatul ahad ak gu baax daat ñu jëndoon ci ñu génne woon ci 15 millions jënd ñaari ñaari pompe yooyu Euh, ren ci màgg sëñ Ousmane daf ñoo waxoon ne euh, mel na ni oto ndox yi fiy ñëw du doy wala it bu accès dana am période boo xam ne ci biir màgg oto yi duñ mën a déplacé wu. kon bu Touba ca kanam mën a ay réservoir yu mag yoo xam ne dañu mën a xool côté yoo xam ne ndox mi dafay jafe ñu teg ko fa su ko defee ñu koy duy muy mel ne bu ci nekk euh, oto fa taxaw fàggu dañ ci ñaar fukki citerne yoo xam ne réservoir waaw yu 5000 litres yoo xam ne ñu ngi ko jëndee quinze millions. moom lañ ko jëndee bëgg bu ñëwee ñu mën a xool fii nga xam ne amul ndox euh, ñu dem di ko di ko fukki heure bu kiyee rek ñu ñu dolliwaat ci ndox euh, loolu mooy li nga xam ne moom lañ def ci lu jëm ci wàllu ndox mi. Euh, lu jëm ci wàllu assainissement dëkk bi tamit ginnaaw bi nga xam ne tàmbale nañ ko li njëkk a def mooy jënd ñaari pompe ñaari pompe yooyu ñu ngi ko jëndee woon 8 millions 812 mille 600 francs pompe yoo xam ne ngir fu taataa am ñu dem mën ko faa samp mën a pompe ndox muy génn. pompe yi nag àndoon ay ay yoo xam ne 2 kilomètres la ndax jafe-jafe bi ñu amoon mooy station Shell bi nekk yoru ndaam foofu rigole bi daf koo sori woon biñ ci ko pompé du ñu am fu ñu ko yóbbu moo tax ñu dem jënd yoo xam ma 2 kilomètres foofa garage dana ne buñ ko fa sampee bi raakol dana mooy dem ba ci rigole bi nekk ci di sotti foofu moo taxoon ñu boobu boobaak léegi tamit eh, ñu ngi pompe ànd koog waa Sapor fi toll nii pompe yi ña nga daaru minam euh, foofu lañ féete tey nekk foofu du pompe euh, lu jëm ci wàllu euh, sëkk beeg yooyu tamit tàmbale nañ ko marché mbaar ya barki démb lañ ko tàmbale ndax foofu naka jekk dañ ko yàgg a jàmbat foofu lañ njëkk a tàmbalee tàmbale dem nañ fa jël ay caterpillar ànd kook sëñ Cheikh Mbacke tàmbale nañ ko ba fi mu toll nii macha allah ña ngay kii waaye nag dañ ko fas yéene continuer biñ ci waxtaanee nag dañoo bëgg lu tolloog 500 camions suuf. lañ bëgg yoo xam ne dañ ko bëgg a tasaare ci dëkk bi ndax bari ñoo xam ne ñu ngi ñuy woo fi ñu toll nii pour seen i mbedd taana dañoo bëgg a manq buñ manqee ba pare euh, ut nañ peel boo xam ne moom moo ñëw maasel foofu ñu sëkk ko ba màggal gi nit ñi mën a màggal ci jàmm loolu daal mooy li nga xam ne moom la ñu bëgg coût bi nag mu ngi toll ci lu jëm ci wàllu assainissement bi liñ ci liñ ci war a génneegu mu ngi toll ci 21 millions 500 euh, camions suuf yoo xam ne dañuy waxtaan ak camions yi 500 lay soxla ku ñëw sotti ñu fay la ku ñëw sotti ñu fay la ba mu mat oto yi nga Euh, noonu deux 200 voyages lañ soxla euh, hydrocureur tamit danañ ci wut ñett yoo xam ne ñoom ñoom ñooy def rotation yi ak pelle mécanique boo xam ne tamit day ñëw di defar kii bi ak ay xeer yoo xam ne dana am barab yoo xam ne du ñàkk ñu def ci xeer. loolu lépp nag ci biir cent 150 millions yi liñ ci génneegum euh, mu ngi toll ci 109 millions yoo xam ne Touba ci kanam génneegum na ko pour lu jëm ci màggal Touba gi incha allah dana dana dana danañ ko weesu ndax 150 millions yi moom mooy li ñu xayma ne incha allah dinañ ko génne ci màggi yi waaye loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci jot a defagum ñu ciy sàkku rek ngeen ñaanal ñu ci bu baax a baax a baax am na ci yoo xam ne ci diggante bi génn nañ ko waaye bokkut ci budget màgg yi ndax loolu dañ koo boole woon ci suñu budget année 2019 lii daal mooy li nga xam ne eh, ci gàttal moom lañ fas yéene géet euh, génne mu dugg ci biir màggal Touba gi waaye am na ci yeneen yoo xam ne yu ñu naan la yoo xam ne moom même bu dul màggal Touba it dañ koy def waaye 150 daal moom la Touba ca kanam génne bëgg ko jàppale comité d'organisation bi ngir liggéey bi nga xam ne sëñ bu dénk ne nañ ko ngir màggal gi euh, mu mel ni mu ko bëggee ñu fas yéene ci dugal suñu loxo di leen ci ñaanal bu baax suñ Touba defal leen ci ndam lu ngeen ci mës a am rek euh, yàlla na ko bu ñëw rek gën a kawe googu ci barkib sëñ Muntaxa الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيجي نيوا sunu bokk taali bi di waa Touba ci kanam di tàmbalee nuyoo bi ci sëriñ Abibu Mbàkke ibnu Cheikh Mahamadou Fadil ko sant bu baax ci taxawaayam ak yitteem ak pasifam ci liggéey bi nga xam ne mooy jëwriñ ji du ko ñaan mu yàgg koo taxawee te yàgg ko ànd ak yéen di nuyu bu baax itam sëriñ Abdou Lahad mu sëriñ Abibu nga xam ne lim doon ci ñun ñëpp xam nañ ko di ko siyaare moom itam di ko sant ni ma ko daa waxee rek lii mu seere yi noon la demee liggéey boo ma ko tàmbalee ba nag ni ñoo ko ànd la jëkk liggéey bi noonu lañ ko daa àndee ba ñu suñu diggante ba ñuy jaxasoo boo ñëwee ci kër suñu bi kon loolu du tey di nuyu di ko sant bu baax mooy itam ci pësteef ba ma xamoon ci ba ñëwee ci kër suñu bi xaw ma lu soppiwaat ci moom ci nangoo jàmm yàlla ak jub ak am pësteef sëriñ bi kon nag ñu koy gërëm bu baax di gërëm yéen ñu topp seen ginnaaw te leen jàppale ci liggéey bi te mooy ci tuddee Serigne Fallou njaay mi. moo ci yitteem pour seefam ak taxawaayam te ca Serigne Mafari Ndiaye ak Serigne Khadim Diouf ak Serigne Thierno Ndiaye ak Serigne Sidi Seck ak Serigne Modou Mamoun Gadiaga ak Serigne Moustapha Dieng ak mbokk yi ñu àndal yëpp soxlawu sax ku leen tudd waaye nag li tax ma jaari seen tur kenn ku ci ne mooy seen pëstéef ak seenu njàmbaar di rafet lu baax liggéey bi. ci turu sëriñ bi Cheikh Mouhamadou taxa mu nga xam ne ba daayira bi sosoo ba na gën kàddu yim mu leen seereel ci yaakaar ji am ci liggéey bi loolu doone sëkk te yaakaar jëm ci amoon ba na gën da koy fetli saa su ngeen fa demee mu waxaat leen wax ju gën a rëy jëm leen waxoon kon nag day mel ne dama ci sant yàlla bu baax ndax ba ngeen koy tàmbali liggéey bi fii ngeen ma fekkoon ci kër Sëriñ Tuubaa gi waaye kàddu ya ma ca waxoon ba ndege ni gisuma dara lu leen ci wàcc mooy tàmbale jësiñ bi yem jësiñ bi di ci gën a sant bu baax a baax itam ndax daayira boo xam ne ëppagut ñetti at ba nopp àgg fii loolu yitteeg procef ju rëy la kon nag dañ koy sante yàlla sante ko Sëriñ Tuubaa ndax li ma ci gën a itteel ci yéen mooy dërëm bu ci def rek lu mu tuut tuut xàmmewu leen ko ka joxe milliard te lu ci ne itam ka ko jëf dana xam ne àgg na ci fa mu war a àgg loolu nag dañ koy rafetlu ndax euh, taalibe yi moom lu joxe ngir sëñ bi amatuñ ci soxla waaye nag ki ki koy àggale bu defee yitte ba mu wóor ko ni jëf ji àgg na dana tax tax mu gën a sawar kon loolu bokk na ci li ngeen gën a liggéeyee sëriñ bi ba ca di mooy lii ngeen def ci màggal gi te ak li jëkk màgget yi ndax waxtu ne yéen a ngi seet li dëkk bi la muy ci wàllu poste de santé yi di ci wàllu ndox mi di ci wàllu leeral bi lu ngeen jàpp ne dëkk bi itteewu lu ngeen ca man ngeen def ko gi itam nag eh, Serigne Ousmane ca tàmbali ba ci njël ba ci mujj yi réunion bi bu ngeen ci mas a def rek ak jëf gi ngeen ci mas a def leeral na ko mooy li ngeen jàpp ci wàllu ndox mi ak leeraay bi ngeen bëgg def ak assainissement bi ak seetal gi lépp lu ci ne seen jëf tàbbi na ca muy loo xam ne itam nag eh, ñaanu Serigne Touba gu nangu rek la ndax jëf ji ku ko dégg day mel ne dayre bu war am ñaar fukki at kon bu yàlla defee ci barkeb Serigne bi ngeen am kat lu mën koo jëf am xolu mën koo jëf te di ko jëfee fa mu ko fi ko gën a soxlaa loolu itam tawfeex la ndax li ma ci gën a yéem mooy li ngeen di jëf. dangeen ngeen ci sóoraale ñu ñu néew doole ñi te loolu euh, lislaam ku ne xam na ne ñi nga xam ne mënul luy seen bopp lu ñu di jëf ci ñoom lu ñu di jëf ci lu baax rek ci ñoom la gën a gaaw kon day mel ne jëmm joo xam ne ab loxo ab loxoom dafa gudd di ko àggal fa mënta àgg kon day mel noonu laa ko jàppe ndax li ngeen jëf rawatina ci lox mi jënd ay dencukaayu ndox yu mag yóbbu ko ci quartier yi nga xam ne mënuñu agsi di ko di ko di ko duy ngir ñi mënta agsi ci dëkk bi di ko jariñoo loolu moom mooy bu ma ci gën a bu ma ci gën a itteel ndax loolu yitte ju rëy la joo xam ne bu fekkente ne dañoo yem ci li ci biir dëkk bi rek fàtte ñooñu dana metti ñoom ndax li fi indi yi ñoo ñoo fa indi ñoom te xëy ne ñii eh, lañ ci maanaam ba seen soxla faj faju ñee mënuñ ko néew nañ ci doole kon nag gàttanu ga ngeen leen di gàttanu ci sancaan yi loolu ku xam dëkk bi xam waa kër Sëriñ Tuubaa yërmaande ji ñu daa am ci ñoom da ngay xam ne rek loolu Sëriñ Tuubaa sol ci yéen la ngeen di ko def kon loolu ñu ngi leen ci santaat bu baax dina gërëm ci mboolam yi ngeen jëf ci màgget gi rek nga xam ne Sëriñ Tuubaa ngeen ko waaye nag eh, ndigam yàlla def na tawfeex mu jaare ci yéen ngeen def ci yitte ji cant gi moom dañ koy delloo sëriñ bi rek nga xam ne liggéey bi ab liggéey ma te Serigne Ousmane itam kerew ba muy njëkk a daje yéen dana ma kat damaa gis ne bi jumtuwaay yoon bi la wi la kon lépp yoon wi soxla rek dañ leen ko war a laaj. ma ne ko ah, ñoom de bi ñu sos daayira bi loolu la ñu waxoon te bañ tàmbalee ba nëgën itam ci loolu lañ kon loolu itam eh, la ngeen waxoon lépp def ngeen ko kon ñu ngi leen ñaanal ci barke Sëriñ Tuubaa eh, te di ci gën a soññu nit ñi nag ndax lii itam bu mënee àgg fii nit ñi di jëf moo tax. kon lu ci waay jëfoon rek na ko fàtte te fas yéene am yitte ci li ci kanamam lu mu ci jëfoon mu xeeb ko te xam ne lu ci waay jëf rek dana àgg ci sëriñ bi loolu daal kon ci gàttal rek liñ ci war a waxaat xam naa ci kanam danañ ko leeral waaye ñu ngi leen sant bu baax cant goo xam ne lépp ci seen jëf la ndax li ngeen di jëf di ko jëfal sëriñ bi noppalu leen bu dégg bëccëg lu jeex rek ngeen indiwaat leen ba ci garab yi ngeen def ci dëkk bi ku dugg ci dëkk bi rek ñëw na rafetlu ko loolu yitte ju yitte ju rëy ak di xalaatal dëkk bi bu ñuy ñaan ngeen gën cee dajeeg ay nam gën cee dajeeg ay tawfeex te sëriñ bi gàttanu leen ci asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu